Balla Gaye li ma boole moom li si gën a bëri Serigne Touba ndaxte nit gor rek mu mën a doon sport sport rek maag Balla Gaye bëri nanu daan na ma loolu yëpp am na ci mais yàlla dogal na ay mbir yu bari sama digganteek moom boobu sax moom nekkagul champion mu ngi nekk ay tout tànk des fois ñu daje fenn ma ne ko rakk yow mii de war nga mën a doon champion ëllëg war nga mën a teral sa baay ndax champion nga ay yu bari yu bari ba ci sëñ Modou Habib Mbacké si man Balla Gaye ni sëñ Modou Habib Mbacké bëggee Balla Gaye ak man bëri na sëñ Modou Habib musaan ñëw ñëpp xam na ni géejo fii lay ne Cambérène ci booru géej gi Omar dana ñëw sax di ko ziar te nit nit rek nga nit ki nga xam ne yëg na la bëgg la boole la sa biir nit ñi ñu ngi wax lu ne. mais lu la fois. yëngaluma sax xam lu tax yëngaluma xam nañ ni bu nuy wax ngir leneen di wax ay yàq der di wax diw lii la ko lii la toppee man sëñ Tuubaa dama taral man amul benn mbër muy takk ngemb ma ñee la yoraluma bor sàccuma fenuma lima am sama fit sama jom moo ma ko may ak ñaanu wayjur ak sama sëriñ man dama xuus fa ba muy mettee dem fu sama nawle am rek fu baax am naa foofu fu baax aw mul dara lu mën a rëy sama bët xama lan ma mën a sa bët sëñ Tuubaa rek billahi wallahi amul lenn lu mën a rëy sama bët ci àdduna ku dul sëriñ Tuubaa ak sama sëriñ Mouhamadou Habib Mbacké boo yoroon milliard ma yor sama dërëm sama dërëm bi laa gën a fonk ngir sëñ Bamba ndax xam naa ni man ni ma bëggee sëñ Tuubaa xoolal ba ma bàyyi lam ba léegi maa ngi sant yanteeg sëriñ Tuubaa lu ma bëgg a def si àdduna serigne touba dana ma si jappale mom serigne bi rek mo len bolé bo xolé omar xamni ne bug bëgg serigne touba des fois dañuy tok di waxtan serigne touba sax day tour ndox day joy joy bu bari parce que ci xol bi la xam nga ak mom danoo bokku lu bari même bu nu togué sax di waxtan da ngay xamni ñun ñaar ba parce que fu gaay yi tek aduna nit ñi ñun teguñu fofu aduna ñun doon ko wéfal té pourtant lu nit ñi def de mëna non ko def ñiy jaay yëpp mën nañ ko ndax sëñ tubaa seetaan ñu waaye nag foo nu fekk rek as ndongo sëñ tubaa bi na doon te na ñuy doon ba faw ba yem a ndax man sëñ tubaa rek laa yaakaar parce que démb rek àjjuma ban dimee julli ji tuubaa loolu daf ma sedd sama xol ban dimi murit gépp ku ne teeruñu ndax lan sëñ tubaa moo tax du làmb du dara tey mbër muy taxaw fii Sénégal ci tele wala ci rajo ngay wax jërëjëf sëriñ tubaa ci bàll bee numéro 2 nga ko dégg muy baaboo yi maa njëkk a toog ci tele di wax sëriñ Touba di sol mbub mi nga xam ne photo Serigne Touba nañ siy def di ko solo sama benn tuut tànk muy ñëw ci làmb ji kon loolu dafa dëggu ci man te loonu lay deewee bëgg sëriñ Touba ci lay deewee lu nit am